صلى الله عليه وسلم وسيلة وفضيلة ودرجات وفيه وبعثه مقام المحمود الذي وعد إياه أعوذ بالله الشميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ابتدع بحمد نفسه قبل أن يحمده الحامد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم الصلاة والسلام على نبينا العظيم الكريم الشريف هو سيدنا ونبينا وشفيعنا وملجعنا ومرجعنا سيدنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وخلفائه ومن تبعهم بإخشان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوان المستمعون اعلموا أن الله سبحانه وتعالى خالف في قرآن الكريم ولتكن منكم عمة أو عمة يدعون إلى الغير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر أولئك هم المفلحون فإذا كنا لم نعمر بالمعروف ولم ننهوا عن المنكر اذا كنا عسر الامه ولذلك قال نبينا محمد عليه الصلاه والسلام بالغوا عني ولو بعايه موكي جولي نيو تي نيو دي لين زياره دي لين بالو اق دي لين بال اق تي نيو نيب ني اندندو تالال سونو لوخو كيغا خامني موي بروم مير ييب موي سونو بروم سبحانه وتعالى مو جيجل ني سوني بكار ييب tabbal ñu ci géeju yërmandeem defal ñu xéewal ak teraanga àdduna ak alaxira defal ko mboolem jullit di sant yàlla it bi nga xam ne moo njëkk a tàmmalee sant boppam balaa kenn di ko sant dooga nag julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, gannaaw loolu sunu boroom subhanahu wa moo yëkkatil boppam kàddu yii jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak àggañu ko mooy lan nee na wal takun minkum ummatan sunu borom nee na mënta ñàkk te warul ñàkk te noonu la war a mën a demee lenn ci yéen doomu aadama yi rawatina yéen jullit yi war na am ay jëmm yoo taxaw ci seen biir guddi ak bëccëg di wàññi nit ñi maanaam di leen waar di waxtaan ak ñoom di leen defar di leen delloo ci yàlla mi nga xamee ne fa la ñu bàyyi ko woon te la taxoon mu indi leen fii mooy pour ñu jaamu ko kon war ko ñàkk mukk ci biir xeet bi ay jullit ay volonté yu yàlla dénk xam-xam te seen kàddu mën a àgg fu ne te nit ñi am ci ñoom yaakaar ak di leen déglu mënuñoo ñàkk ci biir doomu aadama yi rawatina ci jullit yi di leen ak baaxe ay kàddu yu rafet di leen waar di waxtaan ak ñoom pour jëme leen ci seen borom. di leen diggal lu baax di leen tere lu bon yàlla nee na ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy ñu jub ña mooy ñi nar a texe àdduna ak àllaaxira moo tax waaraate mënta ñàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndigal yu mel nii bu ko yàlla tegee ci kaw bu ñu demee ba ñëpp kenn waxatul kenn defatul dara ndax ragal yi wala ñu doyadal la walla ñu toroxal la تنا أم ديجل ولا واحد نتني نحن بات بجوا واحد مني سبوا بار دعنا ينا سبب برسول سابيل تبوا خمينة ولك بولا جك سبروم دعنا متكيو يلا يلا مسلم كيلو على المرء المسلمي الشمع وتع فيما أهب وكره فإن أمر بالمعشية فلا سمع وتع ولا تعب yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mbokki jullit yi nee na ab jullit li tubaab di tuddee être humain maanaam nit koo xame ne jullit nga te yaa ngi ànd ak sa xel ngeen baal ma waxin bi dofuloo reppuloo jinne jàppuloo yaa ngi ànd ak sa xel bu mat sëkk te ngay jullit nee na warteef la ci yow bu ñu yëkkatee kàddu suñu boroom muy ndigal bu dee digal la jëfel بودي تير البايل على المرء المسلم السماء وتاع بودي ديغلي تاي مول ديغلو سونو بوروم بو دبو اك لو نيه گمل بودي تير تا مول تير سونو بوروم بو دبو وليت اك ليغا خامني نيه نلا دغلول دغل تا توب مو خام لو نيه لا مبا خام لو نخاري لا گناو ديغلو سونو بوروم تا وورنا ني القران déglu ko te deg ko te top ko ak ku la ko meuna wax ak foko meuna degge ndax al hikmatun dallatul mu'min yàllante bi neena mbax teranga xewul ala lu julit le foko meuna fek ci aduna jeelal yakumu neena way fa in umira bil maasiya fala samaa wala taa buñ la digele lo xamne du yàlla du yonent bi du njub du bax ludul ay moy kessela ak ci xaan ak ku la ko meuna digel ak fu mu mën a jànge ak ku ko mën a jur ak mu mën mel bu ko déglu bu ko dégg bu ko topp lu leer la yàlla yonent bi wax alayhi salatu wasalaam fa in umira bil maasiya fala samaa wala taa buñ la digalee loo xam ne mooy yàlla la bu ko déglu bu ko dégg bu ko top ak ci ku mën a doon waxaale nabiyana muhammad alayhi salatu wasalaam usikum bi taqwa allah وأوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتمسكوا بها وتعدوا عليها بالنواجذ وإياكم والمحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلال وكل دلال في النار رواه أبو داود والترمذي موكي يريد ما بغي ندغلو في بباخ فجر لير اي ليرال يو بري مو اديو تي حديث بي موي لان لان لا يونت بي واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم دا فا واخ ني يين موكي جولي جي nga xam ne yéenay samay naataangoom ma bokk ak yéen benn xeet yàlla yabal ma ci yéen maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla maa ngi leen di dénk ngeen di yeesal seen ragal yàlla saa su ne maa ngi leen di dénk ngeen nangoo dégg ndigalu sunu borom te di ko topp asama sama taala nee na donte ci leen di dénk kàddu sunu borom jaam la bu dëkkoon Éthiopie maanaam donte ki lay wax yàlla amul khalis bokul ci fami serigne yu reuy yu ñu ràññee amul daraja nekul borom martaba waye lamuy wax wirna yàlla moko wax déglu ko te deg ko te top ko ci jamono yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam Abbas Abbas waa Abashil mooy dëkk bu ñuy wax Éthiopie ne ne donte ki lay wax yàlla nit ku ñu la dëkk ci réew mu Éthiopie bul xol ne. ñu lay boobu bul xool ne euh, du arab ni man gannaaw la mu lay wax yàlla la yonent bi la sallallahu alayhi wa lu baax la déglu ko te dégg ko te topp ko moo tax mu ne maa ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla di ko dénk sama bopp di leen dénk yéen ngeen nangoo déglu ndigalub sunu boroom te di ko jëfe donte ki leen koy wax du borom it teranga du sëriñ bu bu ràññeeku du borom daraja du borom alal bu borom teraanga àdduna ci niñ ko yaakaaree ginnaaw lu leen di wax yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ndigal yu wér la déglu leen ko te dégg ko te topp ko nee na gannaaw loolu nag maa ngi leen di dénk loo xam ne ma ngay ñëw sama gannaaw ci la nekk tey yonent bi sallallahu nee na maa ngi leen di dénk lu ak seegul ëllëg bu ma fi jógee su ma wàccee liggéey ba wuyu ji sama borom man nabi sallallahu alayhi wa sallam di ngeen gis di ngeen tase di ngeen fekkee di ngeen gis ay wuute yu bari ci wàllu islam ci wàllu diine waaye soo boobaa kuy dund ba tombeeg lu mel noonu li ma lay dénk boo bëggee am saas mooy na nga ci yoon bi ma téye woon man mooy sama sunna ak yoon bi nga xam ne ñi ma fi wuutu woon muy Ababacar Omar Ousmane Aliyu fa ñu tegoon seen tànk tegoon ci seen loxo doon ci yëkkati seen kàddu doon ko jëfe képp ku ci teg sa tànk ci loolu la la wóor ne boo dajeeg man ëllëg da nga dajeeg mbégte ci sa kanamu borom kon yonent bi li xew te yépp wax na ko yaxfir allahu lana wa lakum wa li jamiil muslimin alhamdulillahi rabbil alamin suma salaatu wassalaamu على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وخال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا يا إخوان المستمعون وإياكم ومحدثات الأمور فإن فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلال وكل دلال في النار رواه أبو داود والترمذي يونس صلى الله عليه وسلم foofu la ñu amu yamoon dafa wax ne maa ngi leen di dénk yi ëllëg ngeen moytu yu bari yu ñuy sos ci sama ginnaaw sos mooy yu ñuy créé ci tubaab nga xam ne dunduma ko man diirub li ma nekk ci adduna dunduma ko yéen diglewuma ko terewuma ci waxuma ci dara na ngeen ko moytu ëllëg bu ma fi jóge ndax nee na yu ci bari yu ñuy nar a sos yi ëllëg ci sama ginnaaw bidaa la bidaa mooy lu ñu sos loo xamee ne lu bees la ci ginnaawam nee na te yéen sos yu bari réer lay jëmee doomu adama yi te réer ku ci ne te dañu loo ca fam luy yóbbu mooy safar léegi nag hadis bi dafa bëri complication ñu ci bari ci la bëgg a sukkandiku yenn borom xam-xam yi ba lépp loo xam ne def nga ko mu islaam wala mu mën islaam donte yonent yàlla Muhammad defu ko ñu ne la arab na bidaa la nangam ak nangam li nga def arab na li nga def nangam ak nangam yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mës ta takk weeru bi yóbbu bañal sa baaraam yonent yàlla Muhammad mës ta wax ci ay rajo yi xamu ko woon xewul woon yonent yàlla Muhammad xamuñu woon oto xamuñu woon avion ay mbam ak gilem ak fas lañu xamone mom moom lañ doon ajee Makka boo du jeex way yonent bi dafa atté ndax mo wax ne man sunna sunnatan xasana fulu ajruha wa ajru man amala ilayha yonent bi ne kep ku sos yoon bu rafet yoon bu bax yoon bo xamé ne day xirtal nit yi di bëgg bëggloo yàlla li leen xemem loo jikko yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen attiré ba ñu gën a mën a dugg ci lislaam di gën a bëgg yàlla ngir loolu nga xam ne sos nga ko donte yonent bi defu ko nee yow bi ko sos am nga yiw bu képp ku la ci royee am na yiw waaye nag man sanna sunnatan sayyi'a képp ku sos lu ñaaw lu bon loo xamee ne yonent bi mus koo def musu koo digle te yow loolu nga sos fa muy jëme nit ñi mooy bëgg xememteefu àdduna kese ak lu mën a doon fa muy yóbbu nit ñi ak lu mu leen di attiré ak lu mu leen di xalaat loo mooy gën a bëgg àdduna rek di gën a sori àllaaxira yow muy sos loolu am nga bàkkaar képp ku la ci royee am na bàkkaar kon du lépp loo xamee ne buñ ko sosee ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu arab thème bi nag dana dem ba ci tarixa yi fa la ñu jëm de ndax nit lu muy dund ci àddina war na xam base wér ci lu ci l'islam wax tem bi deuxième phase bi ci walu tarikha yi lay wax alxuraan bayul dara buñ ma déglu rek daañu xam ci source yu wir ci yiñ koy tek ba kenn ku ne da nga xam foy tek sa baram lu mën ag tay way benen aljuma inshallah fa lañ jëm kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam lépp la leer du ci caagino lu ñu sos ci ginaawam rek suñu ko defee lu aram la lu mel ni ki kurus kurus bi ñu téye dëgg la yonent yàlla moom mës ta téye kurus ba ñu ci bari boo téyee kurus ñu ne bii daal aram na mais dafa amoon benn soxnaam bu ñu doon tuddee Sofiyatu bintu Hayyin moo dajale woon ay per ay ay xol xobu xol xob maanaam ay doomi tàndarma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko mu dajale ay doomi tàndar mooy bari mu ne ko waaw li ngay def li lii pour la loo ci jublu mu ne ko dafay am ay turu yàlla yu may sikkar te lim bi day bari ma bëgg a xam lim bi lu mu war a toll <laughs> yonent bi ne ko yàlla ci yàlla def xéwal ni'matullahi fi subha yàlla yàlla def xéwal ci ter bii mooy sabab bi ndox mi ñuy tuur ci armeer yi lan moo ko Bilal ibnu Rabaax bi ñuy denc rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa fekkoon mu tukki yonent yàlla Muhammad wàccee liggéey ba ñu denc ko ca gannaawam la Bilal soog a ñëw mu ne man nit war naa am lu ma barkeeloo ci la jël ndox sotti ko ci ci armeel ba mais nekkul obligation kooku mooy sabab bi moom it mu barkeeloo dara ci denc ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon fi ñu koy tënkee mbokk yi nañu bàyyi xel lu bari. xam-xam dafa yaatu digg yi ñoo wute te doomu aadama yi du ñooy atte kii atte mooy yàlla te atteegul yow mal xiyaam lay atte kon dara jëru fi xëccoo wala dara jëru fi kenn ku ne nañ ko bàyyi ak la mu gëm ak la mu déggee aaya alquraanam moo xam kenn ku ne nañ ko bàyyi ak la muy tojee bopp dina xam ba ñu àgg ci ci nga xamee ne nag moo moom ñëpp te war a atte ñëpp te loolu accès guñu ca yowmal xiyam la te ki ko ki ko ki ko fay def mooy yàlla sunu borom subhaanahu wa lii bu ko jullit yëpp xam ñëpp noppalu jarul xuloo jarul xeex te al lépp mu ngi ci biir alquran bi déggin yi ak gis-gis yi moo wuute te noonu doomu aadama yi wuutee ci melokaan ci mbind wa axtilaafi alwaanikum wa alsinatikum wa min ayatihi yàlla nee na bokk na samay kéemtaan bind gi ma leen dind wuute leen ay melo ci ay lakk ci xeet ci askan ci raas li ma leen wuutee noonu yooyu ci samay kéemtaan la bokk kon doomu adam munu yow maasandoo déggandoo benn aaya ci benn anam il faut ñuy déggee nii ñuy déggee ne waaye nañu bàyyi ba àgg ci kanamu ki nga xam ne moo war a atte su boobaa bu ñu attee ñu ñu tënk ko nak muy wax bu am solo yonnati bi alayhi salatu wasalaam wax ko iftaraqat al yahud mbokk yi ihda wa sabiina firqatan wa iftaraqatil nasara اثنتين وسبعين فرقة وسيتفرق هذه الأمة على ثلاث سبع firqa ثلاث سبع فرقة كلهم في النار إلى الواحد نجيكلو تي سوج بي نخاو سوج وقيل يا رسول الله من هي إلى فرقة الذين يعملون مثل ما كان أعمل أشهد يرنتبي عليه الصلاة والسلام من بوكي جرم يعرفك كولر دنا ما سوسو تجيرو يهود bo aduna soso ba bala muy tukki kurel gu ci ne taxaw di samp di di wootee di wax jëmm ci yàlla nee na ci xeetu nasaraan nag juróom-ñaar fukk ak ñaar dana ci sosoo ci ay kuréel kuréel bu ci ne dana am njiit yu taxaw di samp di sampee di digle di digaate yëpp jëme nit ñi ci yàlla nee sama xeet nag mooy ci yées ñooñu moom juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett sax dana góob nee waaye ma di leen yëgal ne kuréel yooyu yëpp safara la jëm lëg bu ñu delluwul ginnaaw ñu ne ko ba mu ne ba mu des benn ñu ne ko benn boobu mooy ban mu ne ba mu des jëmm yi nga xam ne ñu ngi jëfe comme man yàlla yónni ni ma doon jëfe ak may saxaba ni ma doon jëfee ak ñu toppoon ci sama ginnaaw kon nañu góorgóorlu di roy ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla wax ne man kaana yarju liqaa rabbi liqaa rabbihi falyamal amala salihan laqad kaana fi rasulillahi صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر يلا نينا كيب كو ياكار داجك من اولك ديل جيف جي تو رافيت كيب كو ياكار داجك من اولك نين روي جيم جيغا خامني مو سيدنا محمد لما ما بغ ييب نين ملكو دفناكو سي موم لي ما بغ ييب نين سوريكو سوري لناكو تا ديغال نلين كو بامو مات مو في سوغا جوغي من ньо ملني موم نك واي من ньо غورغو لو بو سي ñu am luñ ci am kon ñu teg suñu baram foofu ba ñu beneen ajjuma bu ñu ko fekkee jàmm ñu continuer thème bi allahuma aslihu shaata baynina wa alifu bayna xulubina wahdina السبل السلام بارك الله لنا ولكم في قرآن الكريم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين